ci mbindaafoonu yàlla yi waaye bu leen xalaat ci jëmm yàlla ji kan la fan la naka la kañ la mu ne fa tax la ko kon da di alku du nitu yàlla du waliw du nabi du rasul foofu moom yàlla rek tajalli zaatihi li zaatihi fi zaatihi bi zaatihi min zaatihi ila zaatihi an zaatihi ala zaatihi kenn amu ci cër qul huwa allahu ahad kooku ahadiya la mooy azalul awal ah kon mooy ahadiya ahadiya al taani mooy al waxdatu seq seqeeku gi mu seqeeku moom yàlla feeñal al xaqiqatu al muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam boo ne yàlla rek mënoo ci teg kenn ku dul muhammad mooy waxdatu waxdatu mooy feeñu gi mu feeñu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw moom yàlla ba mu jëlee xaahuut jël laahut ci ahadiyaam mu jël jabarut daal di ko jox seydina muhammad sallallahu alayhi wa li mu xam kenn xamu ko kenn dootu ko xam li mu gis kenn gisu ko keneen dootu ko gis fi mu toll kenn toll fa kenn dootu fa tollate ak lool naw sa waay ak lool naw sa bu ñëpp toogee mu toog moom ngay séen boppam ci kaw bu ñëpp taxawee mu taxaw moom ngay séen mu tiim leen bu jógee ci lu wow dafay tooy ba mel ni sondel bu ruy jeexitu tànkam dafay des bu jógee lu wow dafay bañ mu nappaaje bu jógee lu tooy dafay bañ tànk Seydina Muhammad nappaajo dafay wow ba dangay dem fekk mu nekk aw wogg musta tufli sallallahu alayhi musta xaax ndiku sallallahu alayhi wa sallam weñ musta tong ci kawam jur musu koo daw musta gént lii génn ci góor di génn ca moom bu demee fi doomi aadama di dem muy sutura bu ndaw wala sutura bu mag boo dikkee doo fa fekk dara ndax suuf si daf koy barkeeloo ngir ëllëg bu mbokk ci cëru safara waquduha naas wal hijaara wa idat lil kaafir suuf si daf koy barkeeloo teel ko naan teel ko won ngir bu ëllëgee bu mu doon gox ci goxi safara yi lii mooy alwaxdatu mooy azalu taani seydina muhammad dong moo yor li fa ne seydina muhammad dong moo ne lam fa ne waxdatu moo tax euh, nit yàlla ku baax yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi di bàyyi alaaji Omar Ndaw ci Daaru Salaam Ñooro nit ku dënnam feesoon ci yàlla ba muy xuus ci géej yi benn jàkk jàkkaalu Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom bàyyi alaaji Omar Ndaw dafa ko ne rek xumta uhaydu te uhaydu ñaar fukk ak ñett la waxdatu ñaar fukk ak ñett la nangul wax waxdatu nitu yàlla la mu ànd ak teggin ci kanamu Seydina Muhammad mu ne ko qumta uhaydu uhaydu boobu du tasxiir di ci naxwu yéen jàng grammaire du tasxiir yow kott yaa fa nekkoon yàgg sa borom di borom subhanahu wa taala qumta kon defe na jàkk gis Seydina Muhammad azalu taalit azalu ñetteel ba ci la yàlla defee waahidiyatu ci la feeñoo ci yonant li ko tàmbali ci aadama alayhi salaam ba ci isaa mi sës ci muhammad téeméeri junni ñaar fukki junni ñeenti junni ci yonante kenn ku nekk nag am nu mu la fee am nu mu feeñoo mu feeñ ci lanbiyaa u yi feeñ ci mursaliina yi feeñ ci waliw yi feeñ ci saalihiina yi feeñ ci sëriñ si kenn ku nekk am na mu feeñoo ci yow békku dul jullit sax ci ñetteel bi am na nu mu feeñoo ci yow appareil bi ñu ne tubaab a ko defar wa allama aadama al asma kullaha ba muy defar aadama rek la dugalaale appareil bi génération bu ñëw rek li tolloog yow feeñ avion naaw ñu ne tubaab defar na avion déedéet yàlla li mu dugaloon ci aadama la ñu yore ay kalachnikov di tiire ne Mikhaïl kalachnikov moo ko njëkk a defar déedéet wa allama aadama al asma kullaha kii moo njëkk a defar portable fu ko jëlee ba muy juddu wagn mo gëna a tuuti dikku ci ndikam lim ko defere fi lako fekk wa allama alama al asma kullaha ci la yalla feñale bakkan yi muy ta jalliyaat goog nga xamne mom lañu tuddé bi kana ma kana o bi yakunu ma yakunu bi dafa xacc fuk ak ñaar la benen bi bi fuk ak ñaar la bi kana ma kana o bi yakunu ma yakunu bo bolé ñaar fuk ak ñaar mu jox la ñaar fuk ak ñent ñeent ak ñaar muy juróom-benn xalaqa samaatu wal ardi fii sittati ayaamin juróom-benn fan yaa ngi noonu xalaqa samaatu wal ardi fii sittati ayaamin boo demee ci mathématique riyaadiyaat dafa am lu ñu tuddee algebre lu ñu tuddee tadaaxulul arqaam lim dafay wax lim dafay wax ñiy jëfandikoo service de renseignement agents secrets yi service judiciaire yi courrier diplomatique yi du ñu par ABCD déedéet ñu ngi bindee par chiffre ñi koy firi ñoom la chiffreur yéen ñu jàng tubaab président bi bu doon bind gouverneur bi du ko bind par lettre bonjour wala bonsoir danga gis mu def 2 def l euh, def trois fale def fale 80 vingt def neuf yow boko xolé xoolee nga ne lii de numéro otowaay la wala numéro portable bu rot la déedéet fekk am na secret bu jóge présidence mi ngi jëm ci gouverneur te ñu ngi ragal mu tàbb ci loxo ku ko siiwal te bëgguñ mu siiw lii la ñu tuddee chiffre ki koy traduire moom la ñu tuddee chiffreur yéen ñu jàng tubaab ambassadeurs yi seen leetre ci lii lay demee diggante président ak président seen leetre ci lii day demee diggante buur ak buur ministres yi seen directeur de cabinet yi attaché de cabinet yi euh, militaires yi seen service de renseignement yi gendarme yi policiers lii boo demee am na lu lu ñu tuddee gadget dafay wundeel comme disque boo joxee sa code rek ñu jàng sa lettre sama code nangam la ñu jàng sa lettre te fekk ay numéro la de waaye ñu bindaat ku mu doon alphabet kon lim dafay wax hmm? dégg nañ ko lim dafay wax fànn yi boo ci duggee rek eh, danañ dem ba sone la foog ne kii dafa am jokkoo ak ay nit waaye li alquran daf ko wax sa naktu ma qaddamu wa asaarahum lii alquran moo ko wax sa naktu ma qaddamu wa asaarahum haasihi min al ulumi faqat ki ko xam-xam na ko ki ko xamul réere na ko nga tiim numéro ni foog ne numéro téléphone nga foor bu réer waaye déet ndekk lettre bu jëm bërëb la buñ jo buñ jotee code bi rek bind ko kon yàlla defane ne bii kaana maa kaana wa bii yakun maa yakun benn baa moom la ñu nuqtatul intilaaq boo wotee bopp doomi aadama danga gis benn bërëb mel ni boo dikkee ci ndox muy wàcc ci kan nga gis bopp doomu aadama bu ñu ko wotee nel buy saxaat danga gis benn bërëb bu ron kawar yëpp daal di fa daje ah ñenn ci seen der lay am ñenn yi ci seen nopp lay nekk ñenn yi ci seen làmmiñ lay nekk nga gis lii fi mu fasoo ku mu nekk ci noppam lu mu dégg rek yàlla nangu na ko te dootu ko fàtte ku mu nekk ci bëtam lu mu xool rek jeex na loolu sotti na ku mu nekk ci làmmiñam lu mu wax rek day nekk gisu leen bàyyi sëñ fàllu radiallahu taala anhu ah sëñ fàllu radiallahu taala anhu yàlla na yàlla taas ci barkeem lu làmmiñam tudd rek nekk na kero maa ngi koy tudd fii ci jumaa ji lu taxoon ma tudd ko dafa am ñu demoon tuubaa seeti ko ndeke seen billet aller retour dong la ñu yore ñu dem fekkuñ ko fa mi ngi ca tool ya chauffeur bi ne fii la ñu waxante woon fii laay yem ñu saraxu ko mu nangul leen bañ demee ci sëñ Fallou ba gis ak moom radiallahu taala anhu ne ko ah chauffeur bi nag na nga ko ñaanal de oto jàmbur la yore di ko dawal te Touba la ñu waxante woon fa la waroon a yem waaye moo ñu andi ci daara ji fii xam ne ni mu tudd waaye nitu yàlla mooy mooy defee noonu mu ne ko noo tudd waay mu ne ko mayor mu ne ko yoral mayoro yoral waa ji dafa dem ay camion ay car ay taxi mu dawalatu kenn waaye dafa yore bañ koy dawalal lii la ñuy tuddee nuqtatul intilaaq kenn ku nekk fi mu nekk sa cër lu mu sotti rek lu mu dogg rek loolu sotti lu mu dogg rek loolu sotti euh, ñii seen nopp ci lay nekk euh, ñii ci seen làmmiñ ñii ci seen tànk fu ñu teg seen tànk yàlla barkeel ko ñii lu ñu teg seen loxo yàlla barkeel ko ñii lu ñu lomb yàlla barkeel ko kon keroog la nuqtatul intilaaq am mooy tomb bi nekk ci bismillah rahmaani rahim moo te doo gis araf bu boot alif mu budul moom tomb ba nuqtatul intilaaq la alif ba ñu tuddee ko aliful wusul ci nga yegg ci yàlla moo te ñi naan marifatu billaahi amul euh, xam yàlla amul gis yàlla amul li gisuma yàlla li la jullit war a rusa wax gisuma yàlla ana lu nit mën a gis lu dul yàlla ku baax ke di Maodo Malick si yàlla na yàlla taas ci barkeem nee na budul loon jaam yi seen dengi-deng yi seen sikk sàkka yi budul won li rax ci sen jëm yi bo ne jakk rek da nga ci yalla waye jëm ju tilim ah tournawis bu am mas go xane kawshu la du meuna mas waye waaye gën bu ñu rek ñu mas ruhu sell na yaram sell na dañuy tëbbante ni ruhu di gisee yalla non la ko yaram di gisee ruhu du kenen ku dul yalla wa fihi min ruhi. Ya bobu lan la yaw mutakallim min ruhi. sama ruu bi laa dugal ci nit waa nafaxtu fii ma ëf ci nit ki min ruuhi kon gis yàlla lu am la gis yàlla lu nekk la waaye nag euh, nit ki fi nga toll nangu ne fa nga toll bul gàcceel sa bopp ne lii munta am neel man yegguma fa xawma ko waaye lii amul euh, déedéet kon dégg nañ kàddu gi kon alif boobu mooy aliful wusul al wusul ila allahi azza wa jalla ba di tomb ba di nuxtatul intilaaq ci la yëngu-yëngu bu mag bi feeñee ñu ko tuddee big bang ci anglais big bang big mooy lu ngand ngand bang mooy explosion boo xam ne gétti na xel ci la planète di feeñee étoiles yi ci la feeñee glacique yi orbite yi comète yi géej lépp ci bés bi la xewoon mooy bés bi njëkk ci bésu yàlla yi kon lima ma di dajale du dajaloo ngir mbooloo déedéet du dajaloo ngir tuur waa dafay bés bi nga xam ne ci lañu sosu woon du bés ay jël ay pot di ko tëgg du bés boobu dem nañ ba tubaab di ko tuddee fête de voleurs fête sàcckat yi foo denc ganaar ñu génnee ko foo teg sa beñuwaar ñu jël ko foo teg sa fourneau ñu jël ko góor ñu sol mbubbu jigéen jigéen sol mbubbu góor dafa araam dafa araam jël ay doomu taal diw sa kanam di këpp ay bool jël ay tibb teg ci kaw bu bët setee ñu xooyal ñu naan yaa ngi jël microbe dem di konkongi ay bunt di dóor ay satala di dóor say buntu nekk déedéet yooyu ay aada la yoo xam ne dañ ko fay fekk nañu def li nga xam ne moom la bés bi soxla daje gi yépp lan la mooy wa zakirum bi ayaamillah fàttali leen fanu yàlla yi ñu xam bés bii ummatu muhammad sallallahu alayhi wa lépp ko waroon a bokk màggal li ko tàmbali ci San Francisco ca pegg bële Amérique wala Los Angeles ba ni nga yeggee New York traversé géej gi di océan Atlantique ba ni nga yeggee dakaar fii waaye ni nga yeggee ci Mogadiscio ci Corne d'Afrique ci Somalie waaye ni nga koy jéggee ba yegg ci Sanaa ni nga koy ca yaman jéggi géej yi ba ni ngay yeggee ca New Delhi ci Inde ba ni ngay yeggee Jakarta ci Indonésie ba ni ngay yeggee Sydney ca Australie lii lépp ñu fiy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mi ngi fi boo jëloon ci kaw suuf noonu lay mel lii yaatuwaay bi dong laa tudd kon bés bi dañ ko war feeñal wa zakirum bi ayaamillah bésu yàlla yi bi ci bésu woon ci bés yi mooy bés bi di bésu tamxarit moo tax bés bu njëkk bi neewuñ mooy tàmbale at bi waaye ñu ne tey mooy tàmbale at bi ngir nuqtatul intilaaq bi nuqtatul intilaaq bi di fukki fan ya wal fajri wala yaalin ashr fajr infi infijaar al infijaarul akbar explosion bu mag boobale infajara explosé na wal fajri yàlla ne wallahi giñ naa ci doole bi ma dóoree bés bii ba lépp daal di ca feeñ li dëkkee kër kaw ak suuf njanaaw yi njaay àll yi kiyaafi yi njuuma yi jinne yi kondorong yi nit ñi ci hypomodère ya ah hypomodère amatul benn mun na toll ni jumaa ji ay dinoséros ay mamouche ba wàcc ci micro virus virus yi gën tuuti nga xam ne microscope bu électronique dong moo ci mën a gis lépp ci bis bi la ko yàlla feeñaloon wal fajiri doole bi ma doole bi ma weqee ci waxinu nit doole bi ma dànkaafoo doole bi ma jëñee doole bi ma jëñëxee wal fajiri ba lépp daal di feeñ ci bis bii di bisu tamxarit wala yaa leen ashri fukki guddi yi ko jiitu muy ca ahadiya ca wahdatu ba ci waahidiya wa shafi wal lépp def naa ko muy ñaar man kenn man may condong di yàlla aadama amul ndeeg baay ñun kenn ku nekk am na ndeeg baay tollanti nañ ko xawaa jóge ci góor jógewul ci jigéen isaa jóge ci jigéen bu jógewul ci góor nawet noor cooroon lolli penku sow bët saalum bët gànnaar lu nekk am na lu ko tollanti wa shafi wal watri yàlla dong mooy witr bés boobu ba yàlla dajale mbindeef yépp ñu mel ni ay microbe mel ni ay sànqaleñ mel ni ay ndenqaleñ sànqaleñ xam ngeen ko mooy melentaan bu tuuti bi ndenqaleñ mooy pepp suuf bu tuuti kolentaan boobale sànqaleñ ndenqaleñ dañu benn ci wolof sànqaleñ luy luy dox la am ay tànk dana di màtte sax ndenqaleñ mooy suuf su sew soosu nga xam ne loo faxasu mu des ak yow mbeeñ dafa am salañ am ndenqalañ am yàlla dajale jaam yépp ñu mel ni ay ndenqalañ mel ni ay sanqalañ ci la xàccee jëmm aadama taxawal ko dugal ci xaqiqatul muhammadiya mu ne yéeg leen ci kaw bakkan yépp yéeg ci kaw aadama ñii fare ndeyjoor yépp ay góor lañu ñii fare ay càmmuñ yépp ay jigéen lañu yàlla ne leen alastu bi rabbikum du man maa yor mbir yi ah xaalu bala nga baa bi di na de xaalu ñu ne bala ahankay du man maay seen boroom maay ki sàkk maay ki amal alastu bi rabbikum bi rabbikum la wax xaalu bala ahankay mooy baabi di kar ci bismillah di secret booba la nuqtatul intila ki njëkk na balee mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ko baax ki di xaadimu rasul euh, mawlaana Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla taas ci barkeem mi ngi ñuy fàttali bés boobale ne wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla zawi takallumi yal na yàlla fayal ki nit ñaa ngi wa ilim yi rek di ko romb waaye li mu ci jublu sax xamuñ ko ñenn ñi te yu bari sëñ Tuuba ñaan la ci zahir la ci fi muinan ci misaal ma joxe ko nga yàlla na nga wàccee ñàkk béré bu am mooy dem leen jàng ngir réer jóge fi dem leen liggéey ngir ñàkk jóge fi waaye nga jàng ko tufli ko ni def ni des na de wa anzilil alma makaanal jahli waaw wàcceel xam-xam béré bu réer dool na nga tufli ko nii de nga saafara bi génnal doxantu nga dajeg wërsëg waaye nga sangoo saafara si yéeg ci kaw lal bi daal di ngoon ko tegalante sa tànk yàlla mun na laa may waaye dafay rus kii dox ci mbedd bi wala sango noonu ah, sangoo nga saafara bi sëñ bi saafaram bi baax na lool waaye génnal nga sabab lu ji li kulli shay'in sababun nga saafara si génnal nga dox ci mbedd yi da nga daje ko naan ah góor gi maçon nga nga waa waaye nga sangoo saafara yéeg ci kaw laal bi teg sa ñaari tànk ci kaw yàlla mën na laa may waaye dafay kersewoo ki génn diwuti hmm? dégg nañ kàddu gi moo tax yonte yàlla Muhammad Eh, solo mi ngi noonu mooy aslul usul cosaanu cosaani mooy gongeekuwaay mbindee fi moo tax jëmmam ji noonu la ñu bindee nit Muhammad miim la ak xaa dem dellu bu dee ci xaal pulaar la ñu ne xaa cewdo miim xaa cewdo miim deel muy miim xaa dem dellu miim deel bopp bi mooy miim bi boo ko xaccee mu jur baat bi dem dellu mooy ñaari loxo yi beneen miim bi mooy kàmbu dënn bi ak biir bi deel bi mooy ñaari tànk yi xaqiqatul muhammad yi ñëw moo tax ku jëm safara dañ lay soppi jox la melokaanu mbaam xuux waaye doo duggee melokaan bi ndax lii xaqiqatul muhammad yi la moo tax mbaam xuux baaxul araam naa lekk ku ko di lekk balaa ngay dee sa sa tuñu suuf dafay bàyyi doo ko mën a yéegalati sa suuf dafay bàyyi dafay dem ba sa xefu suuf bi tamit dafay bàyyi dootu mën a ñeppeeti dafay dem ba sidit bi téye ndongam li ñu tuddee colonne vertébrale yéen ñi jàng tubaab dafay bàyyindiku doto mën a siggi taxaw ne da ngay seug rek ñu ñaan julli di dañoo amu njëga moo ñu naan mbaam xuux dafa araam yele mo gëna a seer mbaam wa dafa bon rek wala ma khinzir jazakallahu khair ma ngi sant yalla ma ngi jël aya ma ngi am yeggale euh, sama sago ñëpp mel nonale la bu ma nekkatu ci jotaay bi fekk deg ngeen gis ngeen xam ngeen da ngeen mëna demal seen bop yalla yalla fay leen ya rabbi cëriñ kenn du ko doon cëriñ dañ koy jàng rek bañ ko tàmbalee def ndoon na rek ci la musiba ñëwee tey li gën a yées li bandi doon def tey sëriñ koy def tey mhm. wallahi neexul wax waaye ña seen baay doon toog ci min baree di waare tey ñoom ñooy toog ci tirbin yi ñuy mitin waxtu julli yëpp mu koy faat ne ne doomi nit yàlla la sëtu nitu yàlla la mooy dem ci terrain bi di joxe coup d'envoi match mooy invité musicien bi naan ko ci yoon gi nga nekk ñaanal ñaal ci wéy ci ci bisu gàmmu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii jëfu nit ku baax la nit ku baax li ñu ko xamee mooy soññaate jaajjaate joxe ndigalu yàlla wax tere yàlla ku nekk ci lu baaxul nga maslaanteeg moom bekkaru muy bàyyi comme juuroo ko jàngaloo ko boo ne ko kattit mu daw la ndax ko ndànk-ndànk ba mu ñëw waaye di rafetlu nag la muy def ba mu gëcc ci sóobu di mooy yàlla ba yowmal qiyaamati mu texe di lii baaxul alal bu mu ko yóbbee kenn nit ki mun nga ko corriger ci say feem fekk doo yàq am na benn góor gu gane si woon ku waa ku baax ki bu ñuy lekk dafay tuur mag la de waaye dafay tuur ceeb rek mel ni loxo bi daal sendal la dafay tuur ceeb bi rek xale yi daal di wax ku baax ki ne ko ah góor gi de li muy tuur ci ceeb mun na suural nit de mu ne ko waaw mu ne ko mu ko ba suba xale yi foog ne dafay dóor góor gi wala daf koy dàq wala daf koy génne kër gi ba lekk jotee rek mu àndaale ya benn yar teg ko teg ñu teg ceeb bi mu jël yar bi jox góor gi ne ko sama xale yi nag ñoom bu ñu tibbee lay jëm seen gémmiñ moo gën a néew lépp dañ koy tuur rek ku ci defati loolu rek ne lii dal ci kawam ah xam nga góor gi du dóor boppam waaw ci la bàyyee tuur ceeb ci la bàyyee tuur ceeb kon danga nga mun a yar nit ki éduquer ko xacc ko ba mu doon nitu yàlla ba mu bokk ci góor yàlla yi ba mu set ba mu sellal fekk xeex amul xuloo amul nekkoo di ko encouragé ba muy wéy ci lu bonam la wala di ci keneen di ci wéy yal na yàlla dimbalañ kon tey mooy bis bi njëkk am ci mbind mbindab yàlla bi dégg ngeen li ci sëñ Tuubaa wax radiyallahu taala anhu waaye dégg ngeen li ci yàlla wax wal fajri wala yaalin as wa shafi wal watri fukki fan yi balaa muy ñëw yàlla ci la waxe ndax du man maay seen boroom am na ñu wax ñetti yoon ne ahanka yaay suñu boroom mooy ñuy judd ci lislaam màgg ci lislaam dee ci lislaam yàlla nañu ci yàlla boole am na ñoo xam ne ba ko yàlla waxee ñaari yoon yépp tontuñu ñetteel ba ñu tontu mooy ñiy judd ci lislaam mooy ñiy judd ci weddi yàlla màgg ci weddi yàlla mujj a tuub nekk ci siraatul mustaqim na ko yàlla bëril yaa rabbi am na ñu waxoon waaw noppi wéy noppiwaat mooy ñuy judd ci lislaam murtat dugg ci yéeféer dee ci yéeféer yal nañ ci yàlla musal am na ñu wax ñaar yépp daal noppi ñetteel ga ñu wax mooy ñu judd ci yéeféer màgg ci yéeféer dee nekk ay jullit lii yëpp ay xaqiqa la ci yàlla ci la yàlla ne nag wonnante leen ruuxu bu góor jóge ndeyjoor dajag ruuxu bu jigéen bu jóge càmmoñ lu ñu bokk séddoo rek bu ñu dikkee àddina ñoom ñooy dajaloo doon jëkkër ak jabar jur doom boobale bu dee chinois bi la ak séeréer bi ñoo ko wanoon ci asal fokk chinois bi takk séeréer bi ñu daal di jur doom boobale ndax ñoo ko bokkoon bu dee bambara bi la moom ak xawsa bi ñoo daje woon won na ko buñ dikkee àddina ka nekk bambaram ka la nekk xawsaam foog ñu sëy doom boobu génn seen diggante rek ku woon na benn ñu won na la benn doom ngay am ku won na fukk sax ñu soog laa won na da foog nga jur fukk doom yooyu la ku won na dara ñu won na la danga dikk àddina génn fi danga nga faju ci tubaab yi dem ci sëriñ si ba sonn waaye doo am doom mukk ndax won na woon dara démb ñi wonnante ci kanam mooy ñi nga xam ci biir lislaam ci biir sëy la ñuy juddoo ñu wonante ci ginnaaw yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi mooy ñi nga xam ne dañuy njaaloo rek am doom nii rek yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi baaxul njaalo lu bon la bët dana njaalo nopp dana njaalo làmmañ dana njaalo tànk dana njaalo loxo dana njaalo awra dana njaalo te yowmal qiyaama di cër yëpp danañu wax kër bu awra waxee mbokk dina tiitlu awra góor bu ne diw sàngam tëddoon naag moom fekk muy yaayu kële taxaw muy bàjjanu kële muy jabaru kële sigge dana fa am awra jigéen ne góor sàngam góor sàngam góor sàngam mus na ànd ak man kar sëgg dana am foofale kon balaa ñuy sëgg bés boobale ñu jéem a def lu ñuy siggil tey mooy yem ci lu ñu yàlla yem loo na yàlla def loolu yaa rabbi ci la àddina xewee bés bi yonent yu bari amoon coono waaye bés bi la ko yàlla jeexal bés bi ci lako yàlla jexal yonti yàlla adama ali salam bamu wacce aljana ñëw adina ci bés bi lako yàlla defal mbax yaghfir allah lana wa lakum yahdikum allah yuslih balakum adama ci lako yàlla defale mbax ñu dox jamono yonti yàlla sa dal di ñëw di akhnuq am ñuko tuddé hurmuzul haramis hurmuzul haramis mom yalla may ko ñaar yo xamne bu ko nit amul won mom ak bahima ñoyam mo ñeuk am teug puso ñaw nit ki sol nit ki def doon taraxlaayu rek te taraxlaayu worul de waye ñaw nit ki sol ñaw mbubu nit ki sol sayna idris moko ñeuk def li may netali ni du mag yeen ku ko fekkee ana lan la xam-xam la lu ko jeng mbind la ki ñeuk bind mo yonte yalla idris wa rafa'nahu makanan aliyan yonte yàlla alayhi salaam beñ ko weddee weddi gu métti góogale buy wax ñuy saañ seen nopp dem nañ ba di ko yeew di ko dóor ba mu xam di ko sànni ci ginnaaw kër gi bu demee ba njël piix mi dugg ko mu ximmaliku ba mu demee ba xam na nag lii jëmul kër ci la wax ak yàlla rabbi laa tazar alal ardi min al kaafina dayaaran innaka intazarum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajan kafaran yàlla bul fi bàyyeeti kenn ñii baaxuñ du ñu jur ku baax dem na ba jabaram daf ko weddi woon moo tax may naan jabar ak soxna du benn soxna du musa ngoo bi soxna du la ngeleju soxna du la kekkantu soxna du la laaj loo munul soxna du la tongu soxna du la dagg soxna du am mu nekk fi ñàkk mu dem déedéet moo tax yàlla ne uskun anta wa zawjukal janna waxul ne uskun anta wa amratukal janna déedéet wa azwajuhu ummahatul mu'minin azwaaju la wax ci muhammad ay soxnaam ba ndeyu julli di lañu waaye jigéen bu bonee rek dootul doon te soxna lu muy doon jabar daraballa daraballa masalan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luutin كانتا تحت أبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين جبر يونت يالا لود دا فاي لاك سفاره تا جكرم يونت لا jabaru yont yàlla nuux dafay lakk safara la jëm yàlla moo ko ci alquran nee na jigéen yi gën a bon boo leen di misaal na nga jiital jabaru nuux ak jabaru euh, luut jabaram dem ba weddi di ko diiju di ko tiiñal di ko toroxal nañ yàlla musal ci loolu yaa rabbi yal yàlla may ay soxna ñu nekk ay jabar yàlla na yàlla soppi leen def leen ñuy ay soxna jaay sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kilifa goo gis soxna moo ko jur waaye taxawalukat boo gis quinze kat yi ak yooyu ci jabar kese moo leen jur doom riigul ma lijjanti kook sa baay doom boobu arrière rek lay doon ci ginnaaw rek du avancé mu comme yaa ko riiguloo dafay riigul rek du jóg mukk du am lu mu fees dañ koy ne rek teel ma ma fees waaye du am lu mu fees mukk nañ ci yàlla mu yaa rabbi ba yàlla àndee mbënn ga asamaan si di xelli suuf si di xelli ci bés bii la gaal gi taxawee ci kaw fu ñu tuddee juudi ca bilaadu rafiday ni nit soog a génn daloo suuf si bés bu nekk dana am benn pitax bu naaw dana dem ba jant bi sow bu dikkee du andi dara nuuhu ne ndox mi jeexagul de benn bés pitax bi di ñëw mu ngi àndaale ceti zaytuun zaytuun mooy olive moo tax nga gis organisation yu mag yi ah lu mel ni Nations Unies ñu def ñuy def ay catu zaytuun ci seen drapeau ngir jàmm pitax bi bu ñuy def ay coupe du monde maa ngi jéggalu waaye universitaires yi fi nekk ak xale yi daayira bi nekk ci université bi tubaab la ñu jàng am na ñu déggul wolof bi piir piir ngeen ni ma jéggal tubaabal bi du bëgg jamono mu waaye bëgg leeral la maa ngi jéggal awa nga gis catti zaytun boobum la ñuy def ci drapeau yi mel ni Nations Unies yu mel ni ay Union africain wala ay euh, yeneen organisme yu bëree bëri nga gis bu ñuy def coupe du monde ñu bàyyi yu yooyu ñu naaw boo ñuy def ay fête indépendance ñu bàyyi pitax yooyu ñuy naaw ngir gaat ngawoo jàmm ba xewoon ci jamono yonent yàlla noox kon bés bii la gaal bi gaare woon ñu wàcc daloo suuf si doomam def ko weddi woon lab na jabaram def ko weddi woon lab na ñu dem ba jamono di dox yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mu wéet ci tawhid wéet ci wéetal yàlla namruuz bun kanaan dafa am namruuz am namruut bii dañ ko tomb bii tombuñ ko bala dëkk la bala nit la ci lañu jële ibrahim moom namruus daal di asamaan yëpp yuuxu yow yàlla kenn desu fi ku lay wéetal bu dul kii yàlla kii bu lakk sa diina ji la aay ba wàccee qul naa yaa naara kuuni bardan wa salaaman ate sëñ bi dana doon bànneexu bu ma yeggee foofu bu may firi alquran mu ne alhamdulilah ba mu ne wa salaaman ne woon bardan kenn dootul toggati safara si na nekk galaas waaye mu teg ci ne na nekk jàmm kon nay lakk muy ñor ñuy lekk ah waaye bu ñëwoon euh, baar daan rek yem ci safara da koy laal ni dafay sedd dafay sedd comme glace mhm. lii dana ko doon wax nañ ko fekkee aljana yàlla na dëkkaale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd ko duma di yomb jamono ñu tuumal la ci dafay yomb baayam lay wax maamam lay wax déedéet man nitu yàlla yëpp ñoo yem ci ma déedéet nitu yàlla yëpp ñoo yem ci ma baay bi ma jur maam maam bi ko jur nit yàlla ci réew mi ñu ci biti réew awa man ñëpp laay defal ixlaas ñëpp laay defal laa ilaha illallah ñëpp laay defal salaatu ala nabi waa kër alhaji male ak njabootam képp ku bawoo ci moom waa kër seexal islaam ak képp ku bawoo ci moom waa kër xaadimu rasul ak képp ku bawoo ci moom fu ma dem rek taalibe laay nangoo doon bëgg naa ngeen doon loolu ngir entente ñëw ci lislaam l'islam bëri nañ dem nañ ba un milliard ay huit cent ay neuf cent millions waaye seetal coono gi yëpp ci ñun la dañoo bennoowul dañoo bennoowul euh, bu ñu bennoo kenn duñ mën a joxoñ féeto man nangu naa ko waaye par parloo bëgguma ko jumaa ji li mu yaatu yëpp fenn rek laa ci toog mënuma ko fees nit la ki toog fële munta nekkaat moo toog fii kon foog féete am tijaan la murit la xaadir la yow lu baax wala man kenn li ma yor mooy lu yiw lu keneen yor yiw dafa yiwadi loolu fitna lay jur laa nufariqu bayna ahadin آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله du ñu teqale diggante kenn kon yonent yàlla nuux nii la lii amee ibrahim nii la lii amee sëtam di yaqub teqale nañ ko ak doomam mu tiislu ko ba ba ba gumba ndax yaay bu baaxee bu dundatul rek mbëggeelu bàyyi ci yaay dafay wàcc ci doom moo tax mu bëgg yuusuf ndax soxna si dafa doon raxas ay tànkam di ko defaral ay sikkimam di ko lellil ay weeram buy sang mu koy sang lii dafa baax sa jëkkër dugg ci wanag bi nga jël njàmpe ragg ko dagg ay weyam defar ay sikkimam li dafay àndi mbëggeel diggante jëkkër ak jabar boo ko ñàkkee rek da nga ñàkk lu rëy ba muy matu moom soxna si ba muy matu binyamin ci la ko yàlla moomee muy jihaatu jigéen ñi mbëggeelam wàcc ci yuusuf yuusuf képp ku yàlla bind moo la dàqoon xanaa muhammad ba ñu Muhammad la xoos cuub ci Seydina Yusuf moo taxoon ngeen doon dégg bàyyi di wax ci buy buy mawlid Muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaaquuti baynal xajar nañ ko yàlla fayal yaa rabbi bu ay doj daje nga sànni jamaa ci seen biir mooy Muhammad mhm. mu jooy ba gumba bés bi la ko yàlla delloo bëtam yonent yàlla yuusuf ay doomi baayam jël ko sànni ko ci teen ngir soril ko waaye dafa am lu bambara di wax ah ni yéen turi ji na jifiñenkoro kii ba la jama suma yàlla ni alama janka ba da aba bin kodaado la ah kodaado suma lembe fiñenkoro la loolu mooy lan nee nañ boo téye mbott ci ron daal bi ne danga koy sóoril seddaay nga sànni ko boo moytuwul ci tefes lay bi tefes moo gën a sedd ron daal ñoom dañoo sànni yuusuf pour mu dee mu alku far mu dem mu nekk rasulu nekk nabiyu nekk malik di buur bu égypte ne ne leen udxulu dugg si leen ay doomi bàyyi ko sànni woon keroog xiif mi ngi seen réew kaay leen moo tax sóoratu yuusuf man ma di ko tuddee eh, sóoratu xuruuj ci la ñu génnee ñu tuddaa ko sooratu duxul ngir Yuusuf ne la udxulu misra dugg leen dëkk bi seen réew xiif bi fa nekk yi ngeen ma sànni woon tey man la jàll jox mbir bu dul man du ngeen lekk tey dugg leen moo tax kañaanante warul doon directeur bi warul doon borom dëkk bi warul doon ministre bi warul doon ambassadeur bi warul doon sëriñ bi warul doon élimaan bi kii lu ñu def ko noddukat bi yaay joxe wala yàlla mooy joxe ah yàlla mooy joxe añaanante gi motu ko yaa ngi añaane nit ëllëg budul moom sa benn aajo du faju ëllëg budul moom sa benn aajo du faju kon nañu yéenante mu munoo dem kii dem bul dagg ay tànkam ñaanal na dem andi boo lekk boo ca lekkul sa doom lekk ca benn mu jël sa jigéen walla mu jël sa doom wala mu jël sa sët ngeen doon benn boo fàttalee ko démb ga bu doon lu bon nga gàccew kon yuusuf alayhi salaam ci bis bi la ko yàlla génnewoon ci biir teen bi ñu ko sànni woon yonte yàlla yunus alayhi salaam ba ko jën ba wonne ba mu ne laa ilaha illa anta subhanaka kuntu min azalimin ci la ko jën bi giqee mu génn ci biir jën boobu la seet leen ki waxoon nag Muusa ca doj ya mooy kan yàlla ci tuuri siiniin ki waxoon nag Yunusa ci biir jën ba ci biir géej ga kan la yàlla la ki waxoon nag Muhammad ci kaw aras ne assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa barakatu kan la kon yàlla mooy fépp mooy lépp mooy lu ne loo ne jàkk rek nga gis lii yëpp ay mazahir la kenn nekk fi ku dul yàlla ci la génne ci biir jën ba moom yonte yàlla yunus damay gàttal ndax dafa am message bu ma bëgg joxe tey incha allah yonte ayuba febarna na ba saxe alayhi salaam ba yaram bi yëpp doon sax ba ñu mujj koo génnee dëkk ba jabaram yëpp dem bayiko. ba mu des rahmatullahi doomi yontu yàlla yusuf moo tax booy wut booy wut jigéen bu lay sëyal na nga seet bërëb yi ngay jëlee ji jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam mhm. jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam waaw jigéen yépp ba ñu demee rahmatullahi demul ngir baayam moo yont yàlla yusuf doomu yonantu mu bu lay sëyal li ko baayam yebee def say nekk rek demoon na ba dagg ay jubam jubbam di ko jaay di ko jëndee lekk di ko andil ayub li xewoon na li xewoon na ci jigéen hmm? déedéet kooku du kot kooku du cotte dépasse kooku du kot dépasse waaye waaye doowul it koo xam ne ku ay loxom kotom la waaw ba ñaari sax bii sax jëm ci làmmiñam bii sax jëm ci xolam mu siicu yàlla na ko ah métit ngay jooy mu ne ko déedéet mu ne ko làmmiñ laa dese bu ma la tuddee xol laa dese bu ma la xalaatee bu ma ko ñàkkee lu ma amati ci yow yàlla ci nii la yàlla dindee feebar bi ci moom mu feeñal ndox ci rëkkab jibril mu naan ci sangu yàlla jox ko risaala nabi la woon yàlla def ko rasul joxaat ko lu ëpp ay njogootam lii xewoon na ci ayuba ci bés bi la xewoon yonent yàlla Muusa alayhi salaam ci bés bi la jëloon yatam dóor géej gi mu xotteeku ko doon fukki yoon ak ñaar bani Israil daal di ci jaar na ñëw falalab lab keroog mbokk yi Firawna dowul ne ñépp ñoo bon déedéet Firawna yi bari nañu am na ñu ne paase nañu ñetti téeméer am na ko bind na paase na ñeent téeméer ki bon kay mooy ki dajeg Muusa mooy turam dëgg-dëgg mooy tuut anj xaamuun tuut anj xaamuun turam sax neexul tuut anj waaye firawna yi aw wala nga ne faraina yi boo koy def pluriel pluriel noonu la ko tubaab di wax mooy jàmm da nga ne na faraina am am na ku dajawoon nag yonent yàlla ibrahim moo ko joxoon soxnaam si ñu tuddee haajara ki meññ yonent yàlla ismail am na ku dajawoon nag yonent yàlla yuusuf mi ngi mel ni senegal ku falu kajoor ñun la dammel donte tuddoo dammel ku falu barak ku falu eh, waalo ñu ne la barak donte tuddoo barak moo doon seen slogan ku falu ndukkumaan ndukkumaan ñu ne la bëlëb ku falu woon bawol ñu ne la teeñ walla yéen historien yi du noonu wax noonu la kon firawna képp ku fal woon Égypte yaa ngi tudd firawna ku fal woon ci romain yi ñu tudd leen Kaysar mooy César ku fal woon ci iranien yi ñu tuddee Kisra ku fal woon Yemen ñu tuddee Maarab ku fal woon Éthiopie ñu tuddee Najaasi boroom xam-xam yi di defee seen gëstu yi lu mel ni Cheikh Anta Diop yàlla na yàlla yërëm ko de dëkkoon ci caytu moo bind téere boobale umamu zindiya wal xadaara euh, les sociétés et leur civilisation ci nii Firawna keroog la lab Muusa la mucc bani Israël du ñi déedéet ñii duñu ay israélien ñi ay sambabo yu ñu dajale la Angleterre Angleterre moo leen moo leen fi créé ci 1948 Angleterre moo leen créé waaye ñii duñu ay bani Israël reyaate gu bëri gii nit ku baax du ko def koo bokkalul jubluwaay rek nga nga boom ko di jël avion tiim ay dëkk di leen dóor ay bomb lii ku baax dana ko def ku baax du ko def ñii duñu ay israélien waaye li leen fiy jëlee mi ngi ñëw neexu leen waaye montagne galaas la jant bi koy seeyal mu ngi ci yoon bi te yàlla joxe na ci fiir firnde ci alquran saar yi nga xam ne ñoo tàmbalee sabba sabbal yàlla juróom-ñaari saar la mu ngi tàmbali subhaana allazi asra bi abdi leylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barak na xawlahu ki fa yàlla njëkk a tudd ci yonant yi mooy Muusa wa atayna musa alkitaab wa jaalna hudan li bani israil saar yi tàmbale subhaanallah naka sabbaha lillahi naka yusabbihu lillahi naka sabbisma rabbika juróom-ñaari saar la yi tàmbale tasbix yi tàmbale sabbaal bi ci njëkk mooy sóoratu boo ma tudd léegi di sóoratul isra moo tàmbale subhaana subhaana cosaana mooy sabaha sabbaal na subhaana tuubiru bi mujj mooy sóoratu la ala dafa inna haza la fi suufil ula suufi Ibrahima euh, musa ñi dañuy jeex si tàkk gisoo fan yi seen économie gi réew seen doole réew rës na 30 pour cent ñoom bani Israël fan yi de ci semaine bii daanu nañu jëllu goo xam ne seen usines yi seen koom-koom seen milliards yi ñu denjoon ci àddina gi daanu nañu téeméer bu nekk daanu nañ fanweer bu njëkk kenn ñemewu leen woon tudd boo leen tuddee rek Amérique wax tey ji àddina gi yëpp mi ngi leen di sàllawlu ba démb démb démb moo ci mujj dëkk bu ñu tuddee Iceland ci Europe mu ngi reconnaître Palestine daal di jàmbu Israël kon ñi dañuy jeex tooñ baaxul bu leen tooñ mu alam taalam bi anna zulma aaru u zulma inda allahi naaru tooñ gàcce la payam ëllëg mooy safara yont yàlla suleymaan ci bis bi baayam di daawuda ci bis bi la ko yàlla nangul ba jox ko tawraata bu doon jàng ñandaaw njanaaw yi du ñu mën a lekkati moom la ñuy déglu bu téye woon weñ ak lu mu tàng daf koy lem mel ni sondel xanaa kii moo doon tëgg piir <laughs> doomam Suleymaan ci bis bi la ko yàlla delloon nguuram gannaaw ba mu ko nangoo ca moom lan moo taxoon ñu nangu nguuram mooy estati estati bu ñu doon jaamu moo tax man bu ma dégg ay islamologue ci réew mi du ñu islamologue lok lañu lagi, lok l'islam lok lañ ko lok waye dooñu ay lok. na jegeñ président ma am salaire nangam na dagana li yàlla araamaloon ngir mu nome ma may ministre li ñepp bañoon man na fexé ba tuddu dara ci nosal sama bakkan tuuti rek na yalla li la wax ngir ñu ne président ci deug la nekk mu def la ngay attaché de cabinet wala ngay directeur de cabinet dafa aram de dëgg la man gis naa ay esthétique ci ay dëkk dëkk jullit waaye ci ay dëkk arab arab xeet la arab askan la arab waaso la arab giid la alquran nag du suurun ilahiyun alquran constitution bu yàlla bind la da ngay soppeeku rek nga dekk jullit waaye alquran du soppeeku doon la mukk walan tajle sunnatillahi tabdilan walan tajle sunnatillahi tahwilan tahwil amu ci tabdil amu ci ni melon la mel rek suleyman alayhi salam sayyidina suleyman dafa jihadon ci ben rew yalla dogal bu rew ma de ci bir jihad bi mu jël domam andiko jël ko muy soxna pour wa rew ma meuna ci diina li danay am amna kuy jël jabar beurep fek lim ca nomu moy jengloo wa keur ga ñu meuna dugg ci njub ndax fu sa dom nek nga dem fa boo fa demee foog nga gis la fa nag suleymaan soxna si mi ngi géey soxna si du kontaan du bànneexu mi ngi na zëmm rek suleymaan ne ko waaw yow lan moo lay soppi ci li ah mu ne comme yow am nga ay jinne mun nañu tabax lu nekk ah nañ ma tabax estati bu mel ni sama bayi, ma di ko xoolee sama bayi, hmm? ci la ñu defare benn estati ndeke soxna si bu xëyee dana nekk ak ay mbindaanam ay booyam ñu nekk ci wuur mbalam ñu topp estati googale buy tëdd ngoon mu ñëw tàggu si os estati googale sabab gi moo tax yàlla nangu nguuru yonte yàlla Suleymaan ba mu wëlbateeku nekk nappkat ca tefes ga damay gàttal rek ngir dégg ngeen ko ci passé woon li tax ñu nangu nguur ci ku toll ni Suleymaan di aw yonant nga xam ne amoon na tapi tapi ba rudwaa shahrun warawaa shahrun tapi boo xam ne bu ci toogee dafay naaw li nangu nguuru kooku caaxaan la boo demee Tunisie ci capital ba digg capital bi gis naa fa benn estati ñu ngi ko defal Ibnu Khaldun sociologue la woon boo demee Irak dee nga dem ci saari mutanabbi saari mutanabbi ba tey boo demee da nga ko fa fekk man maa ko tig sama bët ci Irak ci Bagdad ñu ngi fa def benn estati tuddee ko mutanabbi lii du nettali kenn man maa ko gisal sama bopp waaye buñ li ma leen di wax wallahi bu ñu defoon estati ci buntu Kaaba gi du tax mu dagan fi yonte yàlla Muhammad gane àddina di siibu Abi Taalib bu ñu fa defoon esthétique du tax mu dagan milliards yi ñuy def ci esthétique ana université bi ñu defal leen ay logement ana bourse yi xale yi jàngi ana hôpital yi nit ñi faju ana baadoolo yi ñu lekk te regg ana tël yi ñu defal ko mu baax ah ana jumaa yi yeggul ñu yeggali leen ana gas ay château d'eau def ay maraîchage xale yi semé di ci béy waaye caaxaan di po rek caaxaan di po rek waaye ñun ñoo ko jënd de yonte yalla muhammad nee bu ngeen demee ba toppatu leen digal bàyyitu leen tere ma andi leen buur bu soxor bu amul jom moo leen di dóor guddeeg bëccëg te kenn du ci mun dara hmm? làkkat yi nee nañu musu ye ah ñu a y'a ɲɔgɔn nkoro dɔ ah loolu la làkkat yi wa ah, mbëtt am jabar xam mbëtt la waaye du nit la am de waaw xeet bu bàyyi yoon rek ku bàyyi yoon lay am ku bàyyi yoon lay am am na yàlla dimbalañ yaa rabbi nañu fàttaliku bés bi ñuy tëdd ci kaw balankaar ñu jaaxaan ci buntu jàkka ñëpp taxaw ñu ndong ñu ñëw jaaxaan wattaqu yawman turjawna fii ila allah bés bi dootoo doon président doo doon ministre doo doon député doo doon ambassadeur doo doon sëriñ waaye ki nga doon abdullahi rek taalibe bi nga doon xeet mooy def kaalaam ñëw tiim la allahuma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kon dégg nañu li yonent yàlla isaa ci bis bi lañ ko bëggoon a daaj ci kurwaa yàlla musal ko aywa kon ci wàllu yonent yi ma yem foofu ndax mi ngi bëgg a naaj insha allah taala ma dikk ci sama ñaareelu tem ñas ñas yàlla na yàlla fay leen njabooti maam alaaji abdoulaye ñas lañu ñu baax seen barke yàlla na wàcc suñu kaw yaa rabbi yaay seydina muhammad ma jaarale ci di sargal njabooti xaadimu rasul gi fi teew njabooti moom alhaji malik gi fi teew njabooti cheikh al islam eh, ca yoof ca medina gunaas fàttewuma kenn maa ngi koy jaaral ci sang yu baax yi ñu jottalil ma kilifa yépp sama ziyaar ci bés gu tedd gi eh, kon ñeent pàcc la am tey benn bi wéy na mu ci ñaareel gi ñaareel gi mooy lan mooy bés bi ci la karbala xewoon karbala keroog mboolem kuy shérif rey nañ la keroog ba mu des zeynul abidin di ali bun huseyn ak ay bàjjanam lu mel ni seyn zeynab al kubra wala zeynab an nabawiya astaghfirullah zeynab an nabawiya nekkoon di soxna abdullah ibn jaafar bun abi talib keroog ndeysaan jàmb nañu xeetu sayidna muhammad wuruj nañ leen war nañ leen waaye wallahi xasan du daw mukk huseynu du daw mukk ñu ne ko waa réew ma jàmb nañ la de karbala war nañ la wuruj nañ la man du te danaa dem de man du ma tufli di mar mukk ndax sama maam daawul sol mbubu koŋ di xare ji nit ñi dellu mu dellu dafa yooyu rek ba xasan ñëwee ba taxaw jàkkaarloog ñoom yu bari xew fa nettali ko dana daw ci yaram al Huseynu am ñu ñëw ci moom ne ko tee ngaa daw ci la taxawee daal di wax bàkkam gu rey googale ne bàkkaleen ma man maay kan du man maay doomi Faatimata binti Rasuul jigéen bi nga xam ne papam ag yaayam jibril moo leen andil pom jóge ci aljana ñu lekk ko deret googu moom moo jur Fatima te Fatima man may doomam tey kan mooy Muhammad sallallahu alayhi du moo jur sama baay sama yaay Muhammad du moom moo doon sëgg ma yëg ci kaw ndiggam mu raam ak man ba kenn su gis ñu bëgg ñoo dàq ne ah ne amal markuub ndaw ku rafet ku ñu yéeg yonent daal ne wa ne amal raakib ah ki ñu war bu baaxee ki ko war tamit ku baax la ne kooku ndax du man lii dafay am dem nañ ba foog ne booy gàmmoo nga tudd suñu ñii déedéet dafay tax nga nekk tuuti demal du ñu xonq ñi la ñoom Ahmed Shawqi ñoom euh, Rasafi ñoom Jabran ah du tudd ñooñu Jabran Khalil Jabran wala ah, dem a jubbanti oustaz <laughs> yàlla fay la yaa rabbi fanaan ngeen ci ba nañ seen jéggi siraat yowmal qiyaamati bu leen nangu mu tëgg yi xale yi di ko ci def di yàq image yu lislaam déedéet tam xarit na ci julli woor sangu def tusngal saraxe ci euh, dagg we ziyaara ji boroom xam-xam euh, ziyaara ji ku feebar jàng xul wàllaaw junni hmm, bernde ay gan ah waaw la damay dégg benn waay wax na ci mu ne xadiis yi yooyu amul saxuwaay déedéet loolu du maando euh, imam malik ba binde bindee muwatta malik radiallahu taala anhu mu ne bu fekkee benn hadis mi ngi ci bu sellul yàlla na téere bi lap mu sànni ko ci géej téere bi dafa tëmb ba bët set Haruna Rashid ne ko dama bëgg téere bi ñu yóbbu ko Bagdad gannaaw alquran bu dul bii téere bu ñu andi ñu xotti ko mu ne ko loolu du maandu yonante bi li yàlla amoon ci ay yonant noonu la yonante bi am ci ay saxaaba téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni kenn ku nekk dégg nga mbaa nga gis ci yonante bi lu sa morom gisul mbaa dégg ko te kenn ku nekk dellu na réewam kon ma ne li ma yore rek mooy mooy mbir lu keneen yore du mbir loolu du maandu te lii boo demee ci masalakul jinaan sëñ Tuba wax na ko sëñ Tuba dina dund bidaa Aliou Harazimi ki doon bindal euh, euh, Mawlana Abil Abbas Ahmed bun Mohammed bun Mohammed bun Muxtaar Asalimi Tijani mujaamati an Chérif yàlla na yàlla tax si barkeem ki ko doon bindal di imam Aliou Harazimi bind na lii Chama Tijani dina dund bidaa sultaanul awliya xutbul aqtaab Cheikh Abdul Qaadir Jeylaani dana dund bidaa nga xam ne mbaggam tenk Seydina Muhammad mi ngi ci sallallahu alayhi wa sallam imam Ghazali jomp ay loxo Muhammad moo nekkoon ci mbaggam Cheikh Abdul Qaadir Jeylaani tenk yonent moo nekkoon ci mbaggam lii li ko waral mooy guddi gi yonent bi di rañaan dafa àndoon ak ruuxu mbooleem waliw ci ummatu Muhammad ñi judd woon ak ñi judduwul lépp dafa ànd ak seen ruuxu ba muy rañaan ja as sidra yaxsa sidra maa nangu ko tudd ah. yax sa si dana ma yax sa ñu ne gaaw leen Ousseynou bu Ousseynou bu continuer waxam bi rek léegi ñu fekki ko fekk ndeysaan def nañ ay ay fan lekkuñu def nañ ay fan naanuñu ndox maa ngi ni waaye mënuñoo naan ci la Ousseynou yëkkatee benn doomam di Abdoulaye bun Ousseynou ne nag kii xale la perantal la kii xamul dara may leen ko mu naan mar na sonn na fi mu ko yëkkatee rek benn waaye bu ñu tuddee Ousseynou Ousseynou boobu saad la mu sànni fett fett bi bënn xale bi mu ne ko nandal ko ndox ma ngi nonal dara bi non la tuugo ci kaw kanamu hasan xale bi faatu mu daal ko tek ci suuf ci la toge toogee yi xaar ki ubaydullah bun Ziyaad bun abihi muawiya moo ko yéegal ci askanu baayam abu sufiyaan balaa abu sufiyaan di tuub dafa laaloon luy soppi nit dem dëkk mu ñu tuddee taayif dajafa ak benn jigéen majusiya bu ñu tuddee marjana mu amal ko ca doom boobu mu bañ ko reconnaître moo tax olof naan lu réer ci lu réer ci juddu feeñ ci jikko comme ku bon la lu bon lay mën a def ubaydatu am ñu ko tuddee ubaydullahi bun ziyaad bun abihi mu aawiya moo ko yéegal ci askanu maamam mu bëgg a won ne ci laa bokk kii ak Shammar bun Jawzan ñoom ñoo rey Usayn yàlla tànnal ko bés bi gën rey moo tax may dégg sama mbokk chia yi les chiites ñu naan bés bi bésu naqar la bésu tiis la reyu Hasan waaye yàlla dafa xasa dafa tànnal Hasan yow ma alastu bi rabbikum ngir ma doon saydu suhada ngir mu doon abu suhada jarul loolu nitu yàlla ñu tànnal ko bés yàlla mooy sang waxambaane aljana kon bés ba li xew xewee bés boobu la ko yàlla di tànnal ngir mu dugg ci aljana ju kawe ga kon chia yi bëri nañu am na zaydiya am na imamiya am na alawiya bëri nañu waaye tey lislaam dafa aajowoo ay doomam doon benn par parlo bi jëriñu di xas aboubacar aboubacar dong moo am yàlla na ko yaay sahaaba iz yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana moom la yàlla tudd ci alquran may ko saahib moo jël doomam yaay Aïcha may ko yonante bi ba yonante ne xuzu min haazil xuzu nisfa diinikum min haazil humayra xonqe sii lu leen réeri seen diina digg ba tapp ci dënnam la nekk moom ak Aboubacar ñoo tëdd ci benn bàmmeel xasab rek moo dox seen diggante kii dina doon ko yées Seydina Omar ngir teraangam ba yonte yàlla Muhammad faatoo sallallahu alayhi wa sallam yonante dafa doon jéggi benn escalier ñaar ñett ñeenteel mu toog ca Abubakar na du toog fi yonante bi doon toog dafay jéggi benn ñaar ñetteel ba mu toog ca fi yonante doon teg tànkam fa lay toog Omar ba mu ñëwee fi Abubakar doon teg tànkam falay toog Ousmane ba mu ñëwee moom moo yëkkati escalier ba ci kaw teg ci ay escalier kese moom muy toog ci kese bi keroog ba Seydina Aliou di wuti Fatima yonante bi di ko may fekk Ousmane wutoon na ko amu ko yonante na ko loo amu na ko dara mu na ko sa mbàjjo bi mu ne kon liw mu ne ko xanaa sama jaasi yi ma dem jaay ko ba mu koy jaay Ousmane la dajal mu jënd jaasi ba ne ko lu xew mu ne ko dama bëgg a can Faatimatu te aw ma lu ma ko canee may jaay sama jaasi bi mu ne andi ma jënd ko mu jënd ko bés ba ñuy ceetal Faatimatu mu ñëw ne ko jaasi bi laa la jox sa kado sa jaasi bi di siggil lislaam warul génn sa loxo mbañante mi ngi foofu kon ñi ngi xas Aboubacar di xas Omar di xas usmaan yëkkate Ali eh ñoom ñépp ay góor yàlla lañ ñi ñuy xulafaaw rachidin lu ñu def yonent bi ko def sallallahu alayhi wasallam sallam lu ñu bëgg yonent bi bëgg nako ko lu ñu bañ yonent bi bañ nako sallallahu alayhi wasallam mom moom umar mo ñëk andi atu gaday bi hijriya mota lële tuba bi ko mom nasrani ran moy 2011 mille ci juddu Isa Isa le chrétien waye gaday Seydina Muhammad ran moy junni at ñetti téeméeri ak fanweeri ak ñett lii Seydina Ousmane moo ko na Omar moo ko feeñal yal na yàlla fay sa turandoo yaa rab ci lii la julli di war a bindee waaye suñu xale yi xamatuñ ko léegi taxawal ci bunt bi ma bañ cee delluwaat nga ne tey ku ko waxul doo añ tey ñu dul añ dana bëri de ah te ko ren mooy junni at ñeenti téeméeri ak fanweer ak ñett moo tax atu bi at bu kéemtaanu la fanweer ak ñett la jeexee moo tolloog eh, jàlla jàlla mooy màgg na jaa ñett la laam fanweer la fanweer ak ñett at bii ñuy dugg ah na sabab lu baax de boo sabab loolu bon nag da nga ci góob be doy la waaye boo sabab loolu baax da ci góob be doy la démb barke démb señ bi eh, di ma ko fàttali eh, mooy eh, sa way jur bu baax bi xalifa bi ma ne ko jàllo ma ne ma du jàllo de ah, ma jàllo moom laa doon rek ci téléphone bi ma xam ne kii li ñuy dund mu ngi koy dund at bi li ci nekk yàlla xamal na ko mbóot bi yal yàlla fay ko yàlla bi mooy xalifa eh, eh, ñeseen di xalifa moom alaaji abdoulaye tey yal na yàlla fay ko ci la ne déedéet mu ne du jàll de jàll de te at bi jàll jeexee fanweer ak ñett bu ñu lekkantee rek fanweer ak ñett dem fekk juróom muy fukk ak benn fukk ak benn doon huwa dem miru shaana bokkul huwa allahu ba hmm, mooy lii waxoon naa la mooy chiffreur yi ñooy xam lii ah, ñiy jàng chiffre yal na yàlla dimbaleen yaa kon at boobu mooy datu julli di at bële atu chrétien yi la na waaye dañ ñoo noote marginalisé ñu ba dootuñ dara bu korité dikkee feet bi ñaata fan la ah korité benn fan la ñuy maye tabaski ñaata fan benn fan gàmmo ñaata fan dara wala amul dañuy ñaan ñu may la waaye euh, bu Pentecôte dikkee feet la Ascension bu dikkee feet la Toussaint feet la Pâques feet la Noël feet la ay fukki fan ba ay fukki fan ak ay jullit lañ yal na yàlla